waxlul uqdatam min lisaani yafqahu yafqahu qawli mbokk yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem jullit rawatina ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun di topp ci seen youtube bi nga xam ne mooy ak taawunu di seen boo xam ne xam-xam ak tasaare xam-xam moo ko tax a jóg comme niñ nga xamé rek tay ñi ñëw fas ànd ak yéen ci téré bi nga xamné mom lañuy dippé ñuy dippee murid fi adab wa awrad tariqati tijaaniya li ibn baba al alibi nga xamné téré bu am solo la téré bo xamné mag ñi sax dañ doon wax ne buñ bëggaan def nit wala muqaddamal nit foog dañ ko laaj ndax jàng na téere boobu ba maîtrise ko ñu doog muqaddamal nettali nañ ne suñu sëriñ maam alxaaji abdullahi ñas al kabir daan na wax ne moom daan na bokk ci luy doon tax ni muqaddamal nit mooy foog rek dana xam téere bi di nga xam ne mooy mun yetul murid di téere la boo xam ne di téere bu am solo rawatina ci tarixa bi lépp loo xam ne nii aju na ci tarixa tijaan yi rek téere bi làmboo na ko rawatina ci suñu sëriñ Mawlana Cheikh radiallahu anhu nga xam ne dëgg-dëgg fan yi ñu nekk nga xam ne boroom xam-xam yi dañ koy tuddee al ayaamu ak tijaaniya as saida mooy ay fanu tijaan la yoo xam ne fan yu texe la yu tedd yu màgg nga xam ne mu ngi commencé ci dus muharram bi ci weer wi ñu génn ak ci weeru safar bi ci treize bi nga xam ne am na ñoo xam ne sax tey jii mooy treize safar ci ñoom nga xam ne ci la Maulana Cheikh radiyallahu anhu juddoon ba ibnul baaba di wax ci biir téere bi ne xasala mafxarul ala xiina wulid bi ayni maalin da bi fadliha shuhid kon ci bis boobu la woon waaye ci weer bii ñuy jàll di weeru muharram ci fukki fan ak ñaar ya ci la jotoon maqam bu mag bu tedd boobu nga xam ne mooy maqaama alxatmiya nekk alxaatimul muhammadiyal almaalum borom ibnu baaba di wax ci téere bi nee na wa fi muharramin gada rawshan rashid خليفة عن المهيمن المجيد أعطي ذاك شيخنا بعرفة حكاه من حققه وعرف loolu mu nga amoon ci weer wii di weesu di muharram bi ci fukkeelu fan ak ñaar ba cheikh nekk xaatimul wilayati muhammadiya nga xam ne boo xamee lan mooy al xaatimul wilayati muhammadiya al batiniya parce que wilaya dafa am ay xaaj wilayatul zahir ak batin wala ñu koy wax wilayatul kubra al suxra nga xam ne amaana temps bi duñu ko may ngir nii rek euh, commencé gu ñu war a commencé tey téere bi waaye bëgguñ tamit euh, euh, li nga xam ne mooy darsu bi gudd moo tax ñu ngi ndokkeel mboolem tiijaan waaye ci weer bii ñu nekk ci safar bi tey jii ci cëre safar bi am ñoo xam ne démb démbaloon ci ñoom ci la Maulana Cheikh radiyallahu anhu juddu dégg nga naka noonu buñ demee ba sa 18 ci 18 bi Mm, fukkeelu fan ak juróom-ñett bi ci lay jot maqaama kat mi yëgoo nga xam ne eh, dégg nga maqaama bu rëy nga xam ne yàlla nëbb na ko mboolem mindeef ki ku dul eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek xamul ko ak yàlla ak boromam kon loolu lay borom ibnu baaba di wax ci téeréem bi ne maqaamihil maktuumi an kulli wara si wan nabii ma wara uhul wara kon ñu ngi ciy ndokkeel mboolem taalibe mboolem tiijaan tey nag ñu war caa commencé téere bi nga xam ne dafay jàngale lépp lu aju ci Maulana Cheikh ci dundam ci siratu zatihi waaye ci ay manaaxibu Maulana Cheikh radiyallahu anhu ak ci njëriñu tarixa bi ak lépp loo xam ne aju na ci wàllu fiqhu tarixa tijaan yi rek dëgg-dëgg boo delloo ci téere bi da ko gis rawatina mu ànd ak charxa bi nga xam ni mooy buxyatul mustafid bu Seydi Mouhamadul Arabi ibnu Sa'id téere bu am solo boo xam borom xam-xam bu ñu doon Seydi Ahmad ibn muhammad al Alawi al Shinqiti daloon wax ne. ما رأيت نصما في الطريق أحسن عندي من منية المريد جزا الله عنا صاحبها أحسن الجزاء آه، سيدي محمد سيدي أحمد ابن محمد العلوي السنقيتي دفن من جسد نصيب جو قمني مو بنا رفت كي طريق نصيب منية المريد من يارنا يال فايني برمم جنت يارفت كي فاي تموي جاني ابن الباب العلوي ممنك فنيو كما تير بتيرك دنيو كما تير كان موي boroom téere boobu nga xam ne mooy Tiijaan ibnu Baaba al-Alawi waaye balaa dara ñi ngi ñaan di ngantalu ci ñëpp di wax ne ak ndongo la goo xam ne rek dafay e, liifantu e, di sàpp di ñaan di jégalu di jox ñaan ngànt ci képp koo xam ne ñu ngi déglu rawatina boroom xam-xam yi ci yàq yoo xam ne dañ ko def bu ci njëkk mooy amaana suñ naxu ci grammaire rafetul mën nañaa yàq ci ay masque wala ci yu ni mel waaye léegi-léegi tamit xam-xam bi melul noonu mën nañaa yàq ci firi mi loolu ñu ngi ciy jégalu ñëpp ala kulli haalin di wax ni dañuy jéemantu ak dañuy ñëw rek ngir euh, jàngalante wala duma ko tuddee jàngalante sax euh, waaye ak ndongo la goo xam ne rek dafay euh, gëstu te it amaan na lu muy def moom moom lay gën a jëriñ ci ñi nga xam ne ñoo koy déglu ndax xam ne ñu koy déglu ñoom ay borom xam-xam lañ ñu ñaan lépp loo xam ne gis ngeen ko ci ci ay njumte borom xam-xam yu jubanti ñi di ñaan yàlla dafa ñu tawfeexal tey ci ci téere bi nga xam ne téere bu am solo la. borom téere bi nag dañuy baaxoo balaa ñuy dugg ci téere wax kan mooy borom téere bi xam naa na tey loolu mooy nekk darsu bi nga ci ëpp ak muqaddima bi nga xam ne moom la ubbee téere bi bu paree ci muqaddima bi da ngay gis ne dana dem ci jàngale taarif Maulana Cheikh radiallahu anhu ci dundam ci ziratu zaatihi ci jaar-jaaram ba nu mu génnee àdduna waaye jógee ci loolu jàngale lenn ci jagleelu Cheikh radiallahu anhu ak ci jagleelu tariqa bi jàngale muqaddam ak sifatul muqaddam dem ci fiqo tariqa bi nak ci conditions yu surur yak nak non demet li mom la def ci la def tere bi moom Atijaani ibn baba al Alawi mom nak mo mo xamne bopam ci commencement tere bi bala muy commencé tere bi ci ben abyar bo xamne ben beyti bo xamne teunk nako ci moy qala ibn al baba al Alawi nasabu al maghribi al maliki madhabu dafa wax ne qaala wax na Ibnul Baabi Ibnu Baaba al Alawi ibn baba, ibn baba العلوي كي كجر علوي نسبه ماي أسكنم ودعنا نسبه أسكنم العلوي ماي كجر علوي دعنا المغربي فكي من مجد كنت مي المغربي المغرب فلتي موريتانيا تشين فيت المالكي مذهبه مذهب ماي أكل غير بوم نيك ماي المالكي ماي إمام مالك ودار الهجرية دعنا نجيب نخام غا كانوا أبتشين تشين غير بوك لنيك كنا جايس نه مم am la ne boppam ci bayti boobu ci jàng nañu ne kuy wax mooy ibnu baaba ibnu baaba al alawi mu dañ koy tuddee ak tijaan ibnu baaba xam nga boo demee ci addurolu samin addurolu samin bu al alaama euh, gi radiallahu anhu dafa wax ne papaam nga xam ne mooy baaba ibnu bayba am ñi wax baaba parce que wax nañ ne euh, ñu ci ëpp ci waa sinqidi ci dëkk bu ñu juddoo ñooñu lu ñu leen wax mooy baaba waaye eh, ki nga xam ne mooy ibnu baaba moom tijaan ibnu baaba moom moo ñëw eh, dégg nga ñëw ne ibnu baaba eh, ki wax ya tam kon Seydil Arabi ibnu Shayi moom moo ñëw ne ibnu baaba bi maanaa yokk ci alif googu waaye luñ bëgg a wax mooy papaam dafa bëggoon Maulana Cheikh radiyallahu anhu bëgg goo xam ne bëgg gu jéggi dayo la amoon ñetti doom yoo xam ne dafa jël turu Cheikh Tidiane rek séddale neen ko mooy ibnu baaba mi dafa amoon ñaari fereem ñaari euh, magam yoo xam ne kii ñu ngi koy wax al cheikh kii ñu koy wax ahmad kii ñu koy wax dégg nga euh, ak tiijaan yi léegi nag comme a cheikh ahmad tiijaan al cheikh al cheikhu ahmadu tiijaan yi moom la baat papaam papa yi tiijaan yu baaba moom la tuddee woon ñetti doomam yi kii mu tuddee ko al cheikh kii mu tuddee ko ahmadu kii mu tuddee ko ak tiijaan yi ak tiijaan yi nii nag moo bidi téer bi di mun yetul muriiti وأتيجان ابن بابا ابن أحمد بيبا ابن عثمان ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن طالب دينغا موم كو ماي اسكانم اسكان بو خامني اسكانو خامخام ني تشوسانو تي خامخام تي لا بوكول يايام ني نون كاي واخ السيده خديجه بنت محمد مودون واجوروم بو جيجين بوكون تي اسكان بو ري بو خامني محمد العربي ابن شاهي نينا axbarani miraran bi annahu wajada ahlahu wa aqaribahu yantasibuna ila sayidi muhammad ibn hanifa najmi mawlana ali karamallahu wajh mu ne ibnul baaba yàgg na taa wax moom muhammadu ibn arabi wax na ko ay yoon na ñoom seen askan mi ngi askanu ci muhammadul xanafiya mi nga xam ne mooy doomu ali ibn abi kon da ngay gis ne tijaan ibnul baaba mu ngi jokk ci xasan dégg nga dem ci muhammadul ibn hanafiya doomi wala mu ngi jokk ci Muhammad ibn Ali doomi Mawlana Ali karamallahu wajhu ci la jokk muy askan boo xam ne askan buñ xamee la ci xam-xam buñ siiwee la ci place bu kawe ci makaam ci daraja moo tax benn woykat daana wax ne banu aliyin zawu izzin wa wa makramatin wa sudadin wa waalu bil ilmi mu ne banu aliyin ñoom ñooy boromi tedda nga ak denga borom ak tedd nga borom ak teranga waaye borom ay nit ñu xamne ay sang leen ñu kawe lañ ci xam-xam ci diir ak jamono fal ilmu ilmuhum wal majd majduhum wa kana asluhum min lubbi adnana deug deug xam-xam moy seen xam-xam bi mana ay nitu xam-xam ay borom ak tedd nga leen wa kana asluhum min lubbi adnana seen cosaan mu ci biir adnana boy dim seen ciosan day dem ci adnana ndax ci adim ibn abi lañ jokk am ñu wax ne ali ni nii ñuy wax alawi yi nañu muy benn giir la bo xam mu ngi nekk ci fofu ci sinqit ben qabila bo xamné mu ngi siwé la fofu ci ci maghrib ci moy qabilatu sinqit ñu lay wax qabila bo xamné idaw idaw ali la ñu lay wax ñu ne wax ñu ne ali ni ñi wax ben kenn la ci seen mam yi waaye bokkut ak ali ibn abi taalib waye lu wér moy mom ibnu arabiy nett ne wax ne ibnu baaba moo ko wax na ko ñoom seen askan ñu ngi jokk ci muhammadul hanafiya ibnu ali karamadahu wajhu kon kooku moo tax mu ni qaala wax ni ibnu baaba ibnu aba al aliwi kay ko jox aliwi nasab nasabuhu mooy askanam al maghribi waa maghrib la sow jant bi fa la dëkkoon ci Mauritania ci seen xit foofu ci giir gu ñu wax idaw aliw ñooñ ci la bokk mazhabam mooy mazhabul maliki rahimahullah kon kooku mooy suñu bañ a guddal rek noonu mooy ci ziratu zaat yi ci gàttal wax nañ ne ba mu demee ba am 2300 jugee na foofu ci dëkkam boobu ci Maghrib foofu ci euh, jëm fale nga xam ne euh, mooy euh, Marrakech dem na foofu daje daje naa foofu sax Mouhamed Ibn Ahmad ad-Dansusi nga xam ne mooy borom moom la ñuy wax lisaanu tarixa borom xam-xam bu mag ku xam ci tarixa bi waaye moom jugee foofu dem madinatul jadid jugee madinatul jëri dem tànja jugee madinatul tànja dem fi nga xam ne mooy Miknaasa ci Miknaasa foofu nag man fa ñëwee rek dafa yéene woon sax moom ba muy ñëw foofu ne moom du du def foofu lu ëpp ñaari fan wala benn fan ñaari guddi wala benn guddi waaye sax na fa après ñetti weer yu ma sëkk lan moo tax ñu ne parce que ci Miknaasa googu ci la dajee kii nga xam ne mooy borom ku sarxa téere bi di di Buxyatul Mustafid di Seydi Muhammadul Arabi ibnu Saahi ci Miknaasa la dajeeg moom moom moom moom ibnu baba naka noonu dajee na fa ak saydi muhammad bal qasim bashri naka noonu dajee na fa ak saydi abbas bun kiiraan dajee na fa ak saydi muhammad ibn faqira ñii ñëpp dajee naak wax nañ ne dajee naak ci faas diggante faas ak miknaas miknaas dajee na fa ak lu tolloog ay fukki ci borom kàngami xam-xam bi ci kàngami xam-xamu tarixa bi moom ibnu baba al alawi dégg naka noonu ci foofu ci miknaas yi jógee na foofu euh, dégg nga dem ziyaare ji راونا مولانا الشيخ رضي الله عنه جوغي مكناسه دم تونس لوكو وارالو موي الخليفه المعظم سيدي علي تماسيني دا فا فاتون ген ادنا مو جوغي فوفو دم تونس ديغا بو ميغي اندان نك بن سوبم خريتام ني واخ سيدي مختار بن محمدان موم لا اندتون ديغا ني دم فوفو واي نك سي اتام 1262 تومبيك 1845 la jógee foofu nag pour war a dem Tuunus pour war a dem Makka Makkatul Mukarrama boobu mu ngi ànd ak Seydi Salim bun Seydi Ali Tamasin doomi Seydi Ali Tamasin la àndatoon ak soppeem boobu xaritam boobu di Seydi Muxtaar bin Muhammadan ñu jógee Makka nag war a dem tamit Madinatul Munawwara foofu la dem nag moom foofu la mujj placé wu moom Ibnu Baaba def na foofu diiraak lu tolloog un an at ba pare takkoon na ci seen jigéen ñi foofu koo xam ne ci waa Lansaar la bokkoon. foofu la nekk ba mujj am feebar boo xam ne bu doon tasaaroo la comme feebaru mbas yi rek daal di ko dal mu génn àdduna moo xaritam boo di max muxtaar bun mahamadan ñoo bokk même bis mu génn àdduna ñu suul leen ñu suuloon ndeeroon foofu ci Baqiya ci xabru Baqiya yi la ñu suul wax nañ ne moom loolu mu ngi nekkoon ci 1263 waaye dafay war a tombé 1846 milaadiya wax nañ ne Ibn Baba al Eh, lu mu dund yëpp daanaka mu ngi nekk ci vingt neuf ans xoolal ku dund vingt neuf ans xoolal lu mu def ci tariqa bi xoolal téerim bi nga xam ne tey mag ñëpp moom la ñuy jàng kii jàngale moom la ñuy jàngale ci tariqa bi ku bëgg xam cheikh wala nga xam lu aju ci tariqa da ngay dellu ci tay téere bi teg boromam vingt neuf ans la amoon ba muy génnaaw dund vingt neuf ans kon dëgg-dëgg kooku mooy ibnu baaba alawi ci tënk moom la wax ne xaala wax ne ibnu baaba ibnu baaba alawi kee ko jëngaali wi nasabuhu may askanam المغربي كوجك كاي كوجك مغربي دنجا فوف لو دك تي غوخ بوم تي فيني واخ سينخيت تي خابيله بني واخ اي داو علي المالكي كاي كوجك مالكي مذهب هو موي مذهب موي مذهب موني نك الحمد تانت للجاعل ني انا كيغا خامني مو ديف الاولياء يونتي الاولياء يونتي ورثه الكمل الانبياء ني دوم نو ماتك يونتي waaw ki nga xam ne moo def euh, waliwu yàlla yi kon alhamdu cant lil jaay li ñeel ne ki nga xam ne moo def al awliyaa yi waliwu yàlla yi warasata kumma lil anbiyaa yi ñu doon mat ak yonent yi mu ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo def waliwu waliwu yàlla yi doon yonent yi nga xam ne ñooy ñu mag ñi wal jaay ñu ngi sant ba tey ki nga xam ne moo def annabiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam xayral anbiyaa yi mu gën ci yonent yi wa cheyqanaa ki nga xam ne tamit ñu ngi sant ki nga xam ne moo def wa cheyqanaa suñu sëriñ ahmada ahmada mooy ahmada tijaani xayral awliyaa mu nekk ku gën ci waliwu yàlla yi ñu ngi sant yàlla ci loolu mu ne sant boo xam ne xamdan cant boo xam ne yaduuma dana sax bi dawaami na ami ci sax ak xéwali alal xalaayiqi ci mindeefi wa kulli muslimin ak bépp jullit mu ne sant goog nag mu toll ak sant goo xam ne comme ni xéwala yàlla yi di saxee ci mindeefi te ñun ñëpp xam nañ ne xéwala yàlla gi du dañ mukk di ànd ak mbindeef gi di sotteeku ci kaw mbindeef gi te bu ji gën a rey mooy al imaanu bu daahi te loolu du ci da du dañ mukk ci mbindeef gi mu ne summa alal fatihi summa topp dégg nga wala nga xam ne ko summa topp azka azka salaatin gën caa sell ci julli wa salaamin ak mucc wala ak nuyoo ak sëlmal alal fatihi yàlla nekk ci ki nga xam ne moo ubbi maa la nga xam ne xat uxriqaat tëjoon nañ ko mu ne nag ginnaaw loolu julli dañ saa sel ci julli dañ saa sel ci sëlma yàlla nek ci ki xana mo ubbi la lañ lañ tejon te mo yonenti bi alayhi salaatu wasalaam ndax moy al fatih maa uxliqa borom xam-xam yi ne parce que ci mom la yàlla ubbe al albashairu lil imani ci la yàlla ubbe gis-gis yi ngir ñi am al iman billahi ak maarifatu billahi ci la yàlla ci mom la yàlla ubbe abwaabu rahmati ala al khalqi ci ci mom la yàlla ubbe bunti yërmaan yi ci kaw mi defi dégg nga rawati rawatina ci jullit ñi ci mom la boo demé ci jaay ma day ne al fatih lima ukhliqa bi mana ci mom la yàlla ubbee le tëju won ci bunti mané yàlla yi yonent bi ci sababu yonent bi la yàlla ubbee bunti mané mi soti ko ci kaw mi defi dégg nga waaye nee na ci wa bihi fataha allah al alquluba bada ma kanat mamluatan bi shirk waye mo ne ci mom la yàlla ubbee xol yi gina ba nga xamné xol yi fess na tépp ak bokkaale yàlla kon yi ci ci al ci luñu tekké lu borom xam-xam firee alfaatixa li maa uxuliq waaye naka noonu nee na borom ima baaba nee na waman ak ka nga xam ne julli ak selma goog yàlla nekk ci ki nga xam ne xutima lañ kastee lañ tëjee man man la nga xam ne xat sabaxaa jiitoon mu san julli ak mucc yàlla nekk ci ki nga xam ne moo kaste la jiitoon ah dégg nga la jiitoon moo ak wilaaya moo kas moo kas moo kaste nubuwa ak risa ak risala dégg nga waaye tamit naka ci mom sax la yalla di kasse tëjliyaat yi nga xamni ne setu ci mindeef gi motax yonent bi deug deug ñi nga xamne ñoko ray lolu lolu lolu loolu loolu yéeme na waaye dëgg-dëgg ku gemne yonent bi deena war nga xamne kon mboolem tëjliyaat yi ak fuyudaat yi wala ak yi nga xamne ne yermane yalla gi war nga xamne warona dag te ñepp ngi te kep ko xamne ne ngi nekk di yegg sa nekk ba legi xam nga ne nekk googu lu tax mi am lu tax nga yegg sa nekk yi ba tay ci yonent bi la joge boko xame nak xam nga ko boko xamul xamoko dégg nga kon moo tax mu ne euh, wa baada da ginnaaw li fa cheikhuna tijaani suñ sëriñ bii di cheikh tijaani radiallahu anhu mu ne awraaduhu ay wirdoom ay awraadam munqidatun dafay xettali lil jaani ñeel koo xam ne dafa tooñ boppam bi maanaa ci mooy yàlla wala ci ay bàkkaar mu ne ginnaaw lii nag mu ne xamal ne suñ sëriñ bii di cheikh tijaani radiallahu anhu ay awraadam dafay xettali koo xam ne tooñkat la ay awraadam dafay xettali koo xam ne dafa yàq boppam ci mooy yàlla ndax xam nga Maulana Cheikh radiallahu anhu am fulla ba nga xam ne nii ca ba yonent bi di jox tarixam bi def na in kuntu baaban li najaati kulli aasin musrifin ala nafsihi taallaqa bi fa naam wa illa fa ayu fardin li daf na ko bu fekkee bunt ak mucc laa ñeel képp koo xam ne kat yàlla la yàq boppam koo xam dana aju si moom dana aju si man mu ne boobaa de baax na wa illaa bu dul loolu ana ban njëriñ ban gën laa ci am kon moom xalaatu boppam sax waaye mi ngi xalaat ñi nga xam ne ñoo war a jàpp ci moom ndax buñ jàppee ci moom lu nit ki bu ñëwee lum yàqoon boppam lum nekkoon nit ki mooy ndax bu ñëwee dana mën a jëriñu jubte ko ci yoon yonent bi ne ko anta baabun li najaatin kulli anchin taallaqa bik yow yaay bunt ak mucc ñeel képp koo xam ne nii mooy kat yàlla la taaju ci yow loolu lu jare sante yàlla la rawatina ba ñu yàlla boolee ci yoonam bi ci tariixa bi moo tax mu ne wa ba'da zaaki naaw lii fa cheyquna suñ sëriñ bi at tijaani di ko jag tijaani awraaduhu ay awraadam munqidatun di aji xetti li la lil jaani ñeer ku tooñ boppam mu ne wa haaka jàppal nag nasman nosee goo xam ne yakshifu dana huñi alxaqiqa ca dëgg-dëgg ci tariq fi wirdihi ci wirdam bi allaazima ba allaazimi bada buñ taqoo allaazimi bada buñ taqoo li tariqa ñeel tariqa bi mu ne nag mu ne jàppal nosé boo xam ne te mooy wëj yi ab yaay téere bi mu nekk loo xam ne boo ko téyee jàpp ko dana la wuññil dëgg-dëgg njëriñ ji wala mbóot gu nekk ci wiir doog laatin bii ñeel tarixa bi kon téere bi lu mat a bàyyi xel la moo tax mu ne waxaaka jàppal nos man nosé goo xam ne yag shifu dana wuññi alxaqiqa ca dëgg-dëgg fii wir dihi ca wiram ga allah jimi bada buñ taqoon di tariqa ñeel tarixa bi mu ne jaxala naa yàlla na def ñi ilaahuna ilaahuna borom suñu min ahliha ñi bokk ci ñooñ tariqa bi bi jaahi munshiha ci daraja ki nga xam ne moo sos tariqa bi te moo yonent bi was jaahi fadliha ak ci darajaay ngëneel ak tariqa bi mu ne yàlla yàlla def ñu bokk ci ñooñ tariqa bi ci waaye ci darajaay ki nga xam ne moo sos yoon bi te moo yonent bi nga xam ne moo ko ko jox organiser ko comme ni mu waree dégg nga waaye ci daraja yi ngëneel ak tarixa bi yal yàlla bokk boole ñi ci ñooñ tarixa bi amin yaa mu ne lamma salak lamma salaktu maslaka tahqiqi mu ne lamma salaktu ba nga xamee ne nag soobu naa man ibnul baaba maslaka tahqiqi soobu waaye dëgg-dëgg ba nga xamee na nag jël naa nag mbir yi nag pour soobu ci dëgg ci pour def téere bi fii ci moom wa asrajtu ma kàndi wala ma leeral dégg Eh, du ja tariqa lëndëm ak leer gi wala kukk ak kukk eh, yoon bi wala lëndëm ak yoon gi ba ma demee ba dogu ci mbir yi nag dégg nga ba leer lu mbir yi ba mu leer nag ba ma gis ko mu ne sammaytuhu ci laa ko tuddee bi munyatil muridi ci càkkutee fi taalibe bi ne de aaqif yi kay aji jàpp wirdi cheikhina wirdo suñ sëriñ bi assad yi di gay mu ne ba ma demee nag ba xam ba sóobu ci dëgg ba leer lu mbir yi ba mu leer naññi ba yoon bi leer ba ma gis mbir yi ci laa tuddee téere bi bi mun yetil muriid mooy càpputee fi taalibi bi ki nga xam ne moo jàpp wirdo cheikhina wirdo suñu sëriñ bi asadi baji jub téere bi tur bi mooy mun yetul muriid fi aadaabin wa awraadi tariix bi mooy càpputee fi taalibi bi mu ngi ci teggi ni dégg nga mu ci teggi ni ak wirdo tariixa bi kon yow taalibi bi say càkkuteef mu ngi ci teggi ni bi ak ci awraadu tariixa bi loolu ibnu baabu tuddee téere bi radiallahu anhu ibnu baaba ne lawla maxaafatiyal li tatwili la jitu lil mazkuri bi dalili mu ne lawla maxaafati bu taxutoon ragal gu ma ragal li tatwili ngir guddal téere bi la jitu dinaa dikkee lil mazkuri ci luñ tudd liñ tudd bi dalili ci dalil mu ne bu taxutoon ragal gu ma ragal pour téere bi gudd lool ngir bëgg naa ñëpp dégg nga bàyyi ci xel tey liir ko jàng ko bëggu mu kaa guddal loolu mu ñuy fàttali la Maulana Cheikh al Islam waxoon ca téeram ba ndeysaan ci ruuxul adab euh, xam ne ne ñooñ buñ toll jamono ñu toll ñooñ jamono ji dañaa gàttañ lu taye lool rawati ñu suñ sanr gi bu guddee rek nit ñu duñ ko liir moo tax mu ne bu taxutanu la léegi jiitu dinaa dikkee lil mazkuuri ñeen luñ tudd lii mu ne lépp luñ tudd lépp lu may indi fii ci wàllu tarixa baak lu ci aju ci awraad yi ci cheikh dinaa la indil ay dalil ci kitaab ak sunna yi wane ne lii lu tegu ci alquran ak sunna la dégg nga kon loolu lu loolu deug deug da ngay gis ne lu am solo la mu ne nag waaye nag laakin arju min al muhaymin tashila tashila sharh lin nizam hasan lakinnani na lu lu fi nekk ci man arju dina yakar min al muhaymin ci borom bi nga xamne ni dara umbul ko dara lëndëmul ci mom xamne lépp tashila sharh mu yombal ak charxa goo xam ne gu rafet la li nizaami ñeel nosa te moy téere bi waye ma ngi yakar ci sama borom subhanahu wa taala ëlëk bis ñëw yàlla jéglal ko xamné dana ñëw sharha téré bi ci sharha gu rafet gu léra léra leer a akam yaakaaram gu dëgg yaakar gu dëggu la lam te it yàlla defal nako ko ko te sharxa nañ ko ci sharha go xamné ba borom xam-xam ñu dañu tuddé sharha bi bukhara tariq manam moy moy bukhara tariq bi maanaam mooy sahihul buxaari yu bu bu tarixa tijaaniya téré bi moy sharha buxiyatul mustafid mune nak fa inda ci fofu le nak bu lol amé ba am ko yàlla may ci ñooñu tarixa mu ñoo sharha tere bi tuqiru dana sax wala dana wér wala yow tuqiru da nga wéral wala da nga saxal bi tasdiq ci dëggal limaa ci la nga xam ne zakartu tudd naa ko lakkañee la bi tahqiq ci lu woon mu ne bu démé ba yàlla may kenn mu ñoo sharha tere bi leral lu bëree bëri de nga yaatal gëna a yaatal mbir mu ne boba yow mi déglu samay wax yi wala diko lire wala diko jàng da danga da nga da nga lépp loo xam ne tuddal naa ko ci tariixa bi ci ngëneel ci ay manaaxib ci njëriñ dégg nga da nga ko dëggal boobaa mu ne nag hada maa al anni lastu ahlan li daa wa annani istahdaf tahdaftu mu ne hada lii nag maa al ànd ak sama xam bi anni naka man ibnu baaba lastu déet ahlan may yeeyoo li daa ci lii wa annani naka man istahdaftu wantelu naa damaa wanteelu rek bi maanaa dama nekk siibul boo xam ne rek kii nañ ma euh, boo xam ne ñëpp ci man la ñuy wax kon dafa bëgg a def rek lii góor yàlla yëpp di def mooy seen aada mooy wàcce seen bopp dégg nga wàcce seen bopp euh, mu ne ànd ak li yëpp xam naa ne man Ibn Baba al wii nekkuma di yeeyoo sax di bind ci lu xaaju ci taarix bi rawatina ci mbiru cheikh dëgg-dëgg xaajoo na ko dafay wàcce boppam rek waaye méritoo na ko te yeeyoo na ko mu ne nag waaye nag istahdaftu damaa ni ñun ñëpp dañaa nekkoon ci terrain du football ku ne bëgg bëgg a dugal bii ma dugal bii ba waaye tekkiwu na man maay jàmbaar gi waaw dañ doon jam samp bant di jam ku nekk di sànni ñëpp ay jàmbaar lañ waaye tombeek man ma jam bant bi waaye tekkiwu na maa jàmbaar waaye jàmbaar la te méritoo na ko moo tax mu ne hada lii ma al ilmi ànd ak xam gu ma xam bi an nii naka man lastu déet ahlan ma yeeyow li daa ci lii wa an na nii naka man istahdaftu wanteelu na mu ne nag laakin ne nii waaye li fi nekk arju maa ngi yaakaar min al latifi ci borom bi nga xam ne mooy aji ñëwante gi waaw wala yaalamu man xalaqa wa huwa al latifu al xabir mu ne xifsi sama wattu min al xata'i ci njumte wa tasifi ak jéngal maa ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu wattu ma ci njumte mu ngi wattuma ci njuumte ak ci jàngal ci téere ci bind bi may bind ci téere bi may def maa ngi ñaan tamit wa yàqu na ba nekk van nizaami dégg nga bii la nosee sababan di sabab boo xam ne dinaa ci jaaree ilar ilartiqaayi jëm ci yéeg darajaatin nujabaay yéem ci yéeg ci darajaay nujabaay ñu baax ñi mu ne tamit maa ngi yaakaare ci téere bi ci nose bi mu nekk sabab boo xam ne ci laa jaaree yéeg ci darajaay nujabaay mooy ñu baax ñu ni mune timit wa an yumitini an yumitani bam rayma ma maa ngi ñaan yàlla ci téré bi mo rayma ala diini nabi ci diine yonent bi yàlla ko yàlla defal tax xam nañ la defal nako waye waaye ñu ni yàlla ñu ko yàlla defal waye timi wa hubbi shaykhina mo ray ñu ci bëgg suñu sëriñ al imam kay nit ab tayib kay jiitee te moy Maulana Cheikh radiallahu anhu amin ya rabbi ya na ko yàlla defal defal nako ko waye waaye ñu ni yàlla ñu ko yàlla defal mu ne ko nga xam qutbil anami moy qutbu xutbu gi waaw gi di tuqaati nga xam ne mooy borom ak ragal yàlla wal juudi ak tabi ki nga xam ne xibbi rasul mooy soppeek yonent bi sayyidil wujudi ki nga xam ne mooy sangi nekk gi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga mu ne alayhi yàlla nekk ci moom azka salawaati rabbi gën caa tedd gën caa màgg gën caa set ci julleeg borom bi wa alihi ak ñooñam ñi nga xam ne sumu zura ñooy njolox ñooy ñu kawe ci tam nañ wa sax bi ak saxaaba yi ñu yëkkati ko ci njoloxtan lañ bu fekkoon nag kawe njolo lu kawe kawe la nekk ci njolo garab nga ñoom ñoo àgg foofu te mooy waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne kon gën ca sell ci julli borom bi subhaanahu wa taala yàlla nekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg nga waaye tamit yàlla nekk ci waa këram ñi nga xam ne ñu kawe leen ci daraja ak saxaaba yi mu ne nag masta mastaqo fekk mu ngi sopp di nam namm muminin jullit ilaa taybatihi jëm ci taybam ko te loolu du mos a ñàkkaam wa xubbihi ak di ko bëgg te loolu daawiman mi ngi am wa xubbi aali bayti ak di bëgg ñooñu waa kër yonent bi alayhi wa wassalaam kon moom lii la ubbee téere bi ala kulli haalin mu ko defee eh, insha allah yii lépp lu ci jub rek ci yàlla lu ci dëng ci ñun la eh, suñu dar su bi di ñëw bu ñu ci yàlla bàyyi jàmm ñu war a dugg ak ñun nag ci e, dundu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kon loolu la ñuy e, indi tey wax ne in uridu ila al